autorité ak kilifa yi fi teew yëpp macha allah ñun on est très ñëw dëkk si Cambérène ndax man soo fi dëkk see sama doom jële Seydou moo tax ma ñëw dëkk si fi ndax man Ouest Foire laa dëkkoon waaye mu nekk quartier boo xamante ni man damaa bëgg géej te géej ça inspire ma ni fii dëkk fii chance bu rëy la pour man non seulement dina baax ci man côté sportif bi bi ma bëgg di sport fii ci booru bi di dox di nooy air bi non tamit fekk si quartier boo xam ne quartier l'islam la muy diggante fii ak Yoff dëkk bi dafa baax. mu nekk quartier bu am barke nag macha allah. nit ñi fi dëkk tamit aussi doon nit ñoo xam ne amuñu benn problème c'est des gens très fi dëkk ñoo xam ne amuñu benn problème wax dëgg yàlla ñun nag on est très fier dëkk fii man tey jii su ma jëlee benn photo posté ko sax ne Cambérène loolu dama koy dama koy dama koy def chaque matin si ñu am sama sama ay WhatsApp ak sama ay li mais benn bis benn waaye dafa ma posé benn question ne ma Fall yow yaa ngi posé yaa ngi sa quartier Cambérène mais gis nga environnement bi ni mu men quoi ma xam ni waa ji laal na ma ko ma ne ko nag c'est vrai que man seetlu moon sax loolu man dama bëgg lu naturel mais je sais que ni nit ñi fu nit dëkk am tur dañuy yaakaar ni quartier bu chic rek la nit war a dëkk mais man man li may wut du ay ay quartier bu chic man esprit bu chic laa bëgg euh, dund si loo xam lu naturel la di gis muy évoluer ma ma ciy ànd te man bi ma ñëwee fi loolu laa gis quoi gis naa ni jeunes yi ànd nañu mobiliser wu tamit bëgg nañu bëggal nañu fii lu baax parce que ñun tamit ay nit dañu fiy fekk di ñu seet si suñu kër fii te buñ ñëwee gis fi mel nii ñun loolu suñu fierté la macha allah moo tax maa ngi leen di maa ngi saluer bu baax initiative bi nga xamante ni démarré ngeen ko mu doon mu doon loo xam ni benn lépp lépp loo gis si benn lay commencé macha allah maa ngi koy encouragé di ñaan yàlla Euh, monsieur le maire ngeen gën a farlu si doléance yi nga ay wax fii ndax yëpp am na solo déglu naa kàddu yëpp am na solo may nuyu nag bu baax sama maire Ndoye nga xam ni dëkkandoo yu baax laa am fii euh, Iba Seck moom it di suñu dëkkandoo moom it vraiment doon nit ku baax vraiment may remercier tamit tous les jeunes du quartier di leen ñaanal initiative bi ngeen am kat yàlla na si yàlla teg loxoom yàlla na si Seydina Issa Ruuhullaahi mi nga xamante ni moom ngeen koy defal ndax xam naa ni moom ngeen koy defal yàlla na yàlla na yàlla na barkeel. yàlla na barkeel vraiment kontaan naa tey ñun tam ñoo ngi seen gannaaw quoi vraiment lépp loo xamante ni war nañ ci mën a participer wala woo ngeen ñu si ñu war si mën a participer ci xel ci xalaat ci lép culturellement aussi tamit ñoo ngi seen gannaaw.